chers internet yu kenn bëggul TV dal leen jàmm dalati leen jàmm ci li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi ñu commencé kook enquête yéenekaay yi soit ci exploitation suñu pétrole bii yéenekaay bi na benn toq génnagul yéenekaay bi dañu ne jamono ji ñuy wax ak yéen projet de loi bi ñeel wàllum gestion recettes yu jógee ko ci exploitation suñu pétrole nii def nañ ko ba noppi état bu xaaj ñetti xaaj alal gi nga xamante ni moo jógee ko ci suñu pétrole bi benn bi mu jëmee ko ci suñu budget réew mi beneen xaaj bi mu def ko ci gestion exploitation bi beneen xaaj bi mënu la koy waajalee ëllëgu réew mi yéen bi dañu xamal ne instant bii nag la réew mi soxla nag explication état bu Sénégal gii mën a wax askan bi lu dugg ci seeni nopp ndax loi bu bees bii ñu tëral tënk recette yi nga xamante ni moo jikko ci exploitation suñu pétrole bii ñoom nee nañu yooyu ñu ngi bàyyi waale xel njëgu pétrole bi waaye askan bi ci boppam soxla ay explication lii ko tëjee ubbi xët bu yaatu ci ëttu politique gii yooyu yaay Macky Sall lay dooleel ci élection législative yi ñu jëm yéene kaay bi duñu xam ne dañoo yëgul lu xew rek waaye Jibril Wade ba mu duggee ko ci camp présidentiel bi dafa yàgg mën na la boobaak léegi mën na benn weer ci la jox kàddum waa Benno Bokk Yaakaar xanaa kay mu officialiser ko woon moo desoon te def na ko ci week-end bii en tout mu ñu xamal ne Yewwi Askan bi kuréelu maire yi nga xamante ni ñoo nekk bi di Ousmane yi nga quotidien moom del soit ci njiitu réew mi président de la république ak wàccaay gi nga xamante ni mu ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi ñu jëm yéenekaay bi dañoo xamante ne fi ak Macky lépp ñeel wàccaayi ni mel ay thème de sensibilisation lañ ciy ci boppam sax day dugg ci waxtaan bi del soit ci opération jokkoo ak Macky Sall la nekk ci suuf lépp yéenekaay bi del soit na ci le quotidien yéenekaay ne xiiroog ngaayoo gi nekk ci bi dañu xamal ne ci week bii ñu génn xuloo bu tar moo ci bureau politique bu parti socialiste yéenekaay bi dellusiwaat ci coow lii te ñuy xamal ni Serigne Mbaye Thiam moom amul di ko di xamle ci biir yéenekaay bi ne fi mu nii xàmmeetuma parti socialiste man la suñu leader yi ci seen intérêt dong la dem lii moo tax ñoom ñëpp jaay nañ seen ngor dëkkee ci xuloo xeex Les Échos yéenekaay moom dellusiwaat ci musiba mbaa ba kumba gi dal Samuel Sarr yéenekaay bi dañu xamal ne gannaaw plainte Cheikh Amar fi mu nii Samuel Sarr teg nañ ko sous contrôle judiciaire yéenekaay bi deetaat ci lan la Cheikh Amar miy jotee ak Samuel ko Cheikh Amar porté plainte toppee ko moo di moo nekk yi de fi mu nii dañoo mer ba futu rawatina ña nekk ci diwaanu Italie yi yéenekaay bi dañoo xamante ne gannaaw génn àdduna benn sénégalais boo xamante ni ci diwaanu Italie policiers yi dañ koo dóor ba noppi jël bakkanam yéenekaay bi desuwaat ci scénario bi ni mel tey xamle ne sénégalais bi ñu rey mu ngi wuyoo ci turu Pape Demba Wagne moom la ab benn policier italien fekk ci mbedd mii humilier ko dóor ko ba jël bakkanam lii moo tax Modou Modi ñoom ñëpp joxante nañ rendez-vous foofu ci diwaanu Italie def seen marche pacifique samedi bii ñu jëm yéenekaay bi u Sénégal bii di Pape boobu lu état bu Sénégal gi war a jug la ndax fi mu toll mu ngi bëgg ëppi loxo waaye ñoom moodu moodu yi fi mu jug nañu jiite xeex bii ndax ci samedi bii fas ni mën na ak policier italien bii li ko waral dul lenn lu dul mbiru racisme lii donga tax policier bi fekk ko ci mbedd mi dóor ko humilier ko ba noppi jël bakkanam Pape Abdoulaye Seck di ambassadeur Sénégal ci Italie di xam ci biir yéenekaay bi ne ñun danañ dem ca Florence foofu la ñuy amalee ni policier italien bii def na ko

benn pétition boo xamante dégg na ne plainte am na waaye pare nañu pour répondre question yëpp source a ubbi ci xët bu yaatu ne Astou Sokhna kay génn àddunaam ci hôpital bii dafa doy ndax ñàkk yëg nga xamante ne am na ci personnel hôpitalu Louga bii waaye nag fi toll nii léegi lépp leer ndaxte ab enquête ubbi nañ ko ci lu jot a beesagum ci dossier Astou Sokhna bii lépp ngi ci biir yéenekaay bi la tribune yéenekaay moom duñu nettali mbir bu doy waar duwaanu Medina Fall nga xamante ni ñoo ngi ci weeruk jaamu yàlla ci benn waay jël jarbaatam boo xamante ni góor la di sëy ak moom ca duwaanu Medina Fall yéenekaay ne moom waa ji dañ ko bett ak jarbaatam bii muy sëy ak moom waaye ñoom ñaar ñëpp itam nangu nañ ne ay góor jigéen lañ li gën a doy waat ci kaa bi moo di nijaayu xale bu góor bii mën na la dañ ko fekk ci kaw jarbaatam bii muy sëy ak moom waaye lañu ko fekkee du bu ko nettali de <laughs> ctt la xawla wala xuwata am nañu am problème nag ba ci biir weeru koor yàlla baax na yal na ñu yàllay jéggal ñu def noonu ba suwaak jàmm incha allah

yéen ñi doon jooy fan ngeen di jëlee ay produits yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy léegi nag seeni rongoñ mën na fer jot ci produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy yomb na ndaxte adresse am mu ngi ci poste Thiaro yi arrêt tableau Tivaouane neex a jot lool képp ku bëgg a am ci produit yi nga xamante ne nii moom la leen kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy jagleel gaawal gaaw woote au 77 502 15 63 wala 76 378 17 ak kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy seen jaarle jeex na ci fàttali consultation yi kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha moo ngi koy def talaata àllarba alxamis ak dibeer gaaw gi nii da nga am cas d'urgence bu mënutoo toog di xaar gaawal gaaw woote au 77 030 48 40 kon nag mbokk yi kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy yombalal na leen di jaar ngir mën a jot ci produit ku ci wootee da nga jot ci ndaw yi lay tegtal ba nga mën a accès ci bërëb bii jot ci produit faj sa tawat bu dee rendez-vous privé yi kenn bëggul ba Cheikh Sidi Mouhamadou Moustapha Sy jox na leen ñaari bés di altine bu jot ak àllarba bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu maanaam 15 heures jàpp 17 heures kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadou Moustapha si daal moo gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi kon nag jaarama kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadou Moustapha Sy